salaamaaleykum yéen mbokku internetu Allô Sénégal tey ñu fas yéene dikkaat ak ci li nga xamante ne ni moom moo di seen chronique du jour ñu fas yéene waxtaanee ci lenn loo xamante ne ni daanaka akub leeraange ñu ngi ko ciy xaar ba léegi waaye setteegul mu nekk coow li nga xamante ne nii daanaka moom moo dox ci diggante kii di Ousmane Sonko ak kii di aji Sarr saa su nekk nag bés bu ne ñu gis ay révélation yoo xamante ne ni yu yees la yoo xamante ne ni daanaka dañ koy dégg mu tukkee ci mbir mi waaye ba léegi daanaka dara sotteegul mu nekk nag lu lënt askan wi ndax jamono duñ toll nii daanaka dem na ba jéggi dayoo ndax kenn mënu laa wax ne fii la kenn mënu laa wax ne lee ku si nekk daal jàpp nga ne fa nga xamante ne ni fa nga nekk fa la dëgg bi nekk waaye li nga xamante ne ni maanaam moom lañ nemmeeku moom mooy akub audio boo xamante ne ni weneen la mooy juróom-ñetteelu audio woo xamante ne ni daanaka fës na nga xamante ne ni daanaka ay kàddu jib na ci kàddu yoo xamante ne ni daanaka aji Sarr moom moo ko fësal ci bile ojo waaye kàddu yu doy yoo xamante ne ni daanaka kenn mënu koo natable ci li nga xamante ne ni moom moo di ci lu doy waar ndaxte niñ ko waxee ak waxin bi ak na mu demee waaye am na loo xamante ne ni nag kenn du leen ko nettali ndax ngeen déggal ko seen bopp yaakaar naa moo gën a leer. te moom moo gën a wóor xanaa rek dañuy ànd ak yéen ñu daaw di teewlu li nga xamante ne nii moom moo di audio bi nga xamante ne nii daanaka rek tukkee na ci Adji Sarr nga xamante ne nii daanaka ab ojo fuité la gars yi nañ déglu mbir mi su ko defee rek ñu daldi àndaat ak yéen di leen fàttali ne ne yéen a ngi seen chronique fii ci Allô Sénégal nañ dem te ñëwaat. moom ak moo xam lu tax ñemewul def bañ ko woyee demal ñemewul ñëw ak bañ ko ak bi bëggul mu avancé xam na ko bu baax bu fekkee li ma dund mooy sëy du ma jëkkër mukk si àdduna. buy daanu daal di lay naan saaga ma ndey loolu moom dara koy wax. wala fi mu tëj la fii saaga ma wala saaga la su ma tëj ma ah ah saaga ah, ah, par force. yooyu du yooyu yëpp du koy excité saaga rek ah oui koy saaga. dama gis ma naan sama yaay moom sa yaay ma sama da ne mu ngi daal mu jékki-jékki def ko sa lii moo tax moo tax bi du wér de lii nee na day faju ginnaaw gi du wér parce que faj yi indiwu ko no parce que nañu waxante dëkk man man jàngu man duma si duma xaw ma la jàngu ma ko lii benn yàlla boo xamante ni yàlla ne dinaa fi jaar mënu ko. jànguma ko mënuma faj nit sama boppoo ngi nii sama yaram keroog nii faj sax sama bopp man damaa mën a faj nit avant milliardaire xam ne moom na dëggantaan parce que bu ñëwee day toll li ñu capuchon def maas bu jékki-jékki dugg si gis dara jékki-jékki def dama ko fàtte. donc maa dugal ci jacuzzi bi pour seet na si ginnaaw. fekk dama demoon dus ba pare gis daa dugal di génne day yëf taq si koy ma raxas ko mu taxaw ma def ndox ak euh, lii nii. benn milk. Non, pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu avais demandé tous Maintenant pas demandé. Dis-moi, mon aimant, pourquoi que tu ne pas dit que tu avais demandé tous si tu m'as pas dit, ça m'a avis, tu dois le faire. Gégé man damay ñaan loolu chaque jour chaque chaque chaque jour damay ñaan yàlla may ñu ñu ñu jàkkaarloo ma voilà gars yi ñun ñoo ko déggandoo ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ne ni tukkee na ci audio bi. ba léegi coow li daanaka saafara amagu ci même bu fekkante ne nag juge bu huitième cabinet jël na ay matukaayam ngir daal di dégluwaat ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy accusé yi wala ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo laaleeg mbir mi waaye ba ndegees ni rek amul lenn loo xamante ne ni daanaka sotti na ci mbir mi waaye teewul ne ci mbir mi daanaka am na ci ay ndaw yoo xamante ne ni dañ cee ñàkk seen bakkan teewul ne ci mbir mi daanaka jur na lu nekk ci réew mi teewul ne ci mbir mii nii xuloo ŋaayoo xiiroo gi lu ne waxtante lu ñaaw lépp jub na ci waaye ba nëgees ni mënuñoo gis lenn loo xamante ne ni day firndeel ne lii moom mooy firndeel dëgg bi kon nag mbokk yi am na loo xamante ne ni itam faw ñu bàyyiwaat ci xel parce que mbir mi mu ngi ñuy bëgg a tardeel mbir mi mu ngi bëgg jaxase li nga xamante ne nii moom moo di suñu quotidien ndax saa su nekk rek ak lu bees saa su nekk rek ak wax joo xamante ne nii doo xam fan la jóge nan la ak naka la lu ne rek ñu ko ci andi mu nekk loo xamante ne nii daanaka rek tukkee na ci mbir mi compliqué na jaxasoo na ci loolu nag li nga xamante ne ni moom moo ci war yoon war na ci accélérer mbir mi mu def ci li nga xamante ne ni moom moo ci war ndaxte ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ci ñàq seen mbaqeen nekk ay xale yu ndaw seeni wéyjur ñu ngi toog ba léegi banque seen loxo di xaar ana lan mooy dëgg li ndax ñooñu ba léegi naqar la ñuy dund te loolu dafa metti kon nag war na ñu gëstuwaat mbir mi càmbar ko waaye jox ko àq ak yelleef bi nga xamante ne nii moom moo ca war ba nga xamante ne nii lépp loo xamante ne nii daanaka rek dina tax rek mbir mi leer bu ku si nekk rek daanaka xam fa nga féete ñu daal di koy def ci anam bu rafet ndaxte du lii rek moom moo nekk loo xamante ne nii coow la loo xamante ne nii tey jii nii war nañu fee tardel te Sénégal nekk ci ay jafe-jafe yu tar yoo xamante ne nii maanaam war nañ cee taxaw loo xamante ni war nañ cee bàyyi xel loo xamante ne nii war nañoo dimbali askan wi dund gi seer na. lépp nekk ci ay jafe-jafe mu nekk ay problèmes yoo xamante ne ni war nañ koo jël en charge mais tey boo xoolee li ci ëpp doole mbir mii rek mbir mi mbir mi mbir mi à chaque fois ak détail bu bees boo xamante ne nii tey yow sa bopp da ngay dem ba nga naan déedéet lii du dëgg doo xam kañ lay jeex doy na waar compliqué na métti na la nga xamante ne ni nag moo ca war nañ ko daal di def ndax ñu jàll ci leneen ndax rek ñu fàtte. li nga xamante ne ni moom moo di mbir mi mën a jàll ci leneen bu fekkante ne mbirum politique la ñu àtte ne lii mbirum politique la bu fekkante ne nag leneen la nag ñu daal di ñu wax ne lii la ba nga xamante ne ni maanaam en réalité lii dinañ ko fàtte jàll ci leneen ba nga xamante ne ni dootuñu waxati li nga xamante ne ni moom moo ci jëm parce que y a beaucoup de choses yoo xamante ne ni war nañ ko jël en compte ndaw ñi seen xëy dafa sooxe le problème de l'éducation est là toujours yaa di yaa ngi gis ay jeunes nekk di chemin ba léegi mënuñu cee andi leer am na ñoo xamante ne tey seen dossier mu ngi tribunal ba léegi kenn laalagu leen kenn xoolu leen ñu nekk ci ay jafe-jafe yu tar waaye lenn rek mbir mu ndaw mi ñu war cee nekk chaque jour guddi ak bëccëg di ci wax chaque jour lu ne génn ci lu ne xew ci waaye ba léegi kenn mënu laa wax ne en réalité lii la kenn mënu laa wax en réalité fii la dëgg ji de fii la dëgg ji feete lenn daal moom mooy ci mën a nekk ñu firiñu ñu firiñu ndaxte mbir mi daanaka jéggi na jaayo mbokk yi nag lii lañ leen indiloon ci tënk ci li nga xamante ne ni moom moo di audio bi nga xamante ne ni audio fuité la mu nekk huitième audio bu nga xamante ne nii nag dafa fuité tukkee nag ci kàddu ki nga xamante ne ni moom moo di kii di aji saax ba tax na nag ci loolu li nga xamante ne ni moom moo di kàddu yi duma leen ko nettali ndax dégg ngeen ko dégg naa ko ak lu ci mënti am dinañ def le tout toppal leen mbir yi na mu amee étape par étape ngir xabaar leen jox leen ci lépp li nga xamante ne ni moom moo ci war ba lenn doo leen ko umpale waaye loolu noonu yëpp fenn rek ngeen ko mën a amee muy fi nga xamante ne ni moom di seen chaîne YouTube di Allô Sénégal nga xamante ne ni moo leen di toppal lépp du leen bàyyil dara lépp li nga xamante ne nii daanaka rek tukkee na ci xabaar laale ci ponk yépp da leen koy andil faram-fàcceel leen ko bu leen ko joxul ci li nga xam ne moom moo di seen actu du da leen koy jox ci li nga xamante ne ni moom moo di ay chronique toog waxtaane mbir mi kon donc li nga xamante ne nii moom moo di chaîne bi yéen la fi nekkal kon nag boo leen bañuy umpale lenn ci li nga xamante ne ni moom moo di suñuy xabaar yi nga xamante ne ni moom la ñuy joxe wala lépp lu nga xamante ne nii dañ leen koy toppal daanaka da ngeen di daal di abonné waaye laal cloche de notification bi nga xamante ne nii daanaka lépp lu ñuy def lu nekk rek wala lépp lu nga xamante ne ni xew na daanaka kenn du leen ko njëkk a xam waaye dina leen ci xabaar waaye xabaar yu leer nañ jërë ngeen jëf di leen jox dig daje ci yeneen jotaay Merci, à la prochaine.